dal leen ak jàmm mbokk internet yi lu doy waar alkaati ba doon tegee loxo moom la ñu mujj teg loxo kawtee fa am kile di commandant de la gendarmerie bu Touba moom la yoon teg loxo xibaar bi mu ngi tukkee ci journal l'enquête tey ci altine jii nii bi ñu yeewoo ci suba gi waa enquête di xam la ne commandant bu brigade de la gendarmerie bu Touba ak ñenn ci ay éléments yi nga xamante ne ñoom lay liggéeyal daanaka ñoom la ñu teg loxo te fi mu toll nii ñu ngi fii ñu leen ci ndakaaru njaay bu ñu sukkandikoo ci xibaar yooyu lee ba tey mi ngi jógee ci commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire mi nga xamante ne moom mooy général de division da koy joxoñ baaraamu tuuma ci ne dafa yombal dem ak dikk ci yenn doomu aadama a jàngoro ji di covid 19 waaye ba tey mbir mi yemul foofu ndax leneen lu ko yoon di joxoñ baaraamu tuuma mooy ne jàpp nañ ne moom commandant boobule moom moo nekk ki nga xamante moom moo waraloon xeex ak xuloo gi amoon ci diggante ab way takk der di ab policier ak ay gendarme yi nga xamante ne moom moo nekkoon seen kilifa yooyu les gendarme yu nekkoon ci ndigalam jot nañu dóor ab policier ba sax xaw ko gaañ ci fàttali itam am na benn ci ay gendarme bu nekkoon ci poste foofule ci péage bi ca Touba moom itam dañ ko teg loxo ci lu yàggul dara ngir rek ne moom dafa may ay nit ñu jàll te loolu le warul ci waxtu pa couvre-feu wala sax waxtu woo xamante ne tere nañu dem ak dikk ci diggante ay dëkk ñi ko xam ne ñu dem sax bay dimbale yi ci ginnaaw si nga xamante ne jot nañ ko jox alal jërë ngeen jëf Tactic TV mu ngi leen di jaajëfal